ma ne ko xam nga la moo neelu suñu boroom subhanahu wa taala yàlla jaarale ko ci Serigne Saliou mu jaarale ko ci Serigne Béthio Thioune wa anna al fadla bi yadillahi yuti man yasha wallahu zul fadlil azim yàllaay séddale Serigne Dame yàllaay séddale cëri ku bëgg a noppalu da ngay nangu maag Moodu mii dama génn taxaw ci buntu course bi wala ñëw benn waay romb ma ne ma grand Serigne foo jëm ma ne ko de maa ngi jëm ca soxna Ayda moom Serigne Cheikh Béthio ci Thioune moom Serigne Saliou mu ne ma tiijaan bu toll ma ne ko toppal ci rang gi mbaa nga nokk ma ne ko toppal gi mbaa noppi ci rang gi di nga wax ba ci rang gi te du yàqu ndax borom rang gi dafa na rang gi lu jiitu ba gaañu dara benn waay daf ma woo sëñ Modou ma taxaw ci buntu course bi war a ñëw fii mu ne ma grand sëriñ ma ne ko labbayka mu ne ma foo jëm ma ne ko ca soxna Ayda mu ne ma tiijaan bu toll nii yow loo fa wuti ma ne ko toppal ci rang gi mbaa nga noppi ci rang gi di nga wax ba yàqu ci rang gi te rang gi du yàqu ndax borom rang gi defar na lu jiitu rang gi ba gaañu moo tax ba gaañu dara ma ne Modou mii. ren gi daal neexul ba neexul waaye Serigne Saliou la Cheikh Béthio la soxna Aida doxal insha allahu kenn du la mën a dara dem nga ba noppi ku yëpp nangu nee naa léegi sëriñ bi lii de cooli cooli oto yi ci kanam yi ci ginnaaw ñoo leen di corné oto ci kanam Serigne Saliou yi ci ginnaaw ñoo leen di corné imaamu Saafi moo ko man lam yasuq zullan taallumi saatan tatajarraha kahsal jahli turaqayaati soxna Ayda nii mu mel tànnee fu suñu borom la ku yóbbu nangu man lam yasuq zullan taallumi saatan tatajarraha kahsal jahli turaqayaati eh Serigne Saliou mbaa yëpp nga ni ki njëkk ki ñu njëkk a tuur deretam lislaam jigéen la muy Sumayya mbaa yëpp nga ni bi yonent bi faatoo benn jigéenu ko doon muy nafisatul misri moo doon yonent yàlla muhammad yëgal jigéen yàgg naa am jaloore ci diinul islam jigéen yàlla yàgg na koo dimbali jigéen yàgg naa am ndam te nee naa nag jigéen lu mu jiite mu dem jigéen dem ndax xam na lu tax jigéen dafa ragal gàcce te bëgg ndam soxna Ayda boo ko nee jàkk xam ne kii beneen affaire la beneen affaire kon soxna si ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla gën laa aar yal na yàlla gën laa sàmm ñun de na nga yëg ni bét nga kontaan nañu xol yi sedd na incha allahu dinañ fi jël si waat beneen jël si boo xam ni da nga xam ni kat ñun ñëw nañu yal na yàlla gën laa sàmm nit nag fooy jege di fa jege bu la jigee doo fa jugee jàpp bu dëgër waa ngi jërë ngeen